alhamdulillahi rabbil aalamiin bismillahi rahmaani rahiim wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illaa ala zaalimiin wasalaatu wasalaamu bi akmalihima wa atami suwarihima mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi alkiram wa sahaabati alidaam wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddin amma baadu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 bàyyi leen ci kanamu njaboot gi ñu yàgg fi lool waaye ziara mboolem soppe yeeg am di jàmm yi nga xam ni dañuy bége sunu Label TV waaye rawatina di bége seen émission jilsatu nabi di jataayu sayduna Muhammad wi sallallahu alayhi wa sallam euh, gërëm ziara bu baaxit ñaanal ko sunu directeur Haj Makhtar Silla ñaan borom bi taxawaay yi yàlla mën na ko rek la yàlla na yàlla rek li lépp bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi sallam defalaale ko personnel bi ne ci ginnaawam yëpp di ko jàppale ci liggéey bi mbokk yi ñu ngi ci waxtaan wi nga xam ni moom mooy li sabab sunu feet gi nga xam ni moom lañu nekk ñun ñëpp di ci activité te mooy iidul adha di feetu tabaski ma wax la ni Ismaïla démb tëral nañ ko mu nangu muy doom Ibrahima di bàyyi moom it nangu ndigalal yàlla mbokk yi moo tax feet gi dama bëgg ñu xam lan mooy mbir mi bit bi mooy yàlla day càmbar sunu ragal yàlla fan la toll <laughs> waaw mi Moussa lu ñu war a may yàlla bu demee ba ñu ñàkk ci ba ñu ciy jaare ñun di ñàkk yàlla est-ce loolu kon ñun juutuluñu affaire bi feet gi mbaa man damay ragal mbaa juutuluñ ko ñun sénégalais yi nañu déglu bu baax seetaan bu baax bàyyi xel bu baax fan lay yàlla doore feet gi Ismaïla lañ bëggoon a rey mbokk yi Ibrahima ko bëggoon a rey ta baayam te santaane borom bi la yàlla ne ko Ibrahima qad saddaqta ru'ya d'accord naa ni léegi li ma la sant fas nga yéene def ko moo tax bi zabhin azim bi muy rendi la yàlla ne Jibril roccil Ismaïla roofal xar Ibrahima rendi tekki ay bëtam fa qaala Jibrilu Ibrahima gis ku taxaw ci wetam di Jibril gis Ismaila taxaw sëgg ci suuf xool muy xar mu dégg Jibril wax ni allahu akbar moo tax Jibril a njëkk a wax moo sabal tudd turu yàlla màggal ko ba pare sant borom moom Jibril fa qaala Ibrahima Ibrahima daal ne laa ilaha illa allah akbar Ibrahima ne amul benn buur bu nu jar jaamu jaamu gaa di njëriñ bañ gaa jaamu gaa andi lool kurul yàlla moom doo nga màgg Ismaila ne allahu akbaru walillahi alhamdu yàlla màgg ak cant moom doo ko yoyoo moo tax baat yooyu ñu sartal ñu ko Musa ci yawmu naxari ayaamul ashri laay wax sax ñu sàkk sartal ñu ko ci fukki fan yi ñuy faral di utiliser baat yooyu moo tax bu ñu demee fële ca xadis ba yonent bi di wax ni lu ñu utile allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila mbokk yi feet gi yàlla nee na pour càmbar seen ragal yàlla la damay làmb xool ndax la ngeen liggéeyoon ci weeru koor war tamay ragal yàlla moom laay vérifier nii ci tabaski ba xool ndax yéene ngeeg moom ba léegi ah Moussa faaw ñu faaw ñu xam feet gi pour la de yàlla dafa am lu ngeen liggéeyoon moom laay làmb nii ku ci ne damay yërndu sa xool xool ndax la ngeen liggéeyoon tama poosé loon leen ko ndax ma ngi yéen ba léegi moom laay xool moo tax lan yanaala allaha luxumaha yàlla ne man yàpp wu bëri wu ñoruma ci deret ju bëri ju ñoruma ci sañse bu rafet bi ñoruma ci walakin yanaalu taqwa minkum <laughs> Moussa yàlla nee na damay seet ana kan ci yéen moo ragal yàlla ba mbokk yi feet gi feetu ragal yàlla la waa feetu ragal yàlla war naa andi tàqale war naa andi tàqale diggante jëkkër ak jabar waa feetu ragal yàlla Moussa est war na andi maanaam nit bëgg cee jaare won nit ñu doolem ju mu am xam nga maa ngi koy wax nit ñi ree démb wax naa ko ci benn jataay ma ne xam ngeen jigéen ñi daa mel ni xamuñu sartu tabaski ba kenn ku ci nekk yaa ngi dem wuti huit sol ñii cinq sol Moussa nag man li ma ci métti mooy bu ñu solo woon sax dem ziyaare ji ndax ziyaar sax baax na maanaam duñ ko def xam loo métti mooy dañ koy sol estati daal di bind ci suuf première attaque ay waay bu ñu summi waatee boobu bu solaat beneen estati bind deuxième attaque ah bu ñu demee ba cinquième mbaa sixième ba ne ma tëjee boobu ba déwén ay yow ndax xam nga lanay sunu journée bi bëggoon naa nga xam feet gi lan la de feet gi xam nga lan la woon mooy ko amoon ñaari yére seet ko amul benn Moussa foofu lañ war a toll feet gi feeg yóbbooguñu foofu billahi tabaski defagul ci ñun effet Moussa faaw Tabaski def ci ñun effet ba yegg ci nit du yor lu dul deux cent mille ba koo jënd xar xalaat keneen ne bàyyil ma jënd bu cent mille jëndal kooku beneen bu cent mille waaye bu ñu demee ba toll ci Tabaski yóbbu ñu ci nit day xaar ba ñëpp jënd ci fin bi pour ma xool seen xar nu mu toll <laughs> pour man mënoo ko jënd bu gën a ngand boobu. ah kii defante la jàppee suñu bis bi non Moussa nañu bàyyi xel de am na ñu jàppee Tabaski defante de. te billaay du feetu defante billaay lazi laa ilaaha illaa huwa feet la gu ñuy wër yàlla pour am ci yàlla li ci gën a ñor yàlla mooy nan la ñuy def pour am ragal yàlla mbokk yi pour nu am ragal yàlla mooy kenn ku ne seetal la feet ga yayoo nga def ci taxawaay te mooy lan naa ko jàppee jaamu yàlla objectif bi ma am jaamu yàlla la moo xam yére ba ma cay sol moo xam ba ma cay jënd ci gàtt moo xam lu ma cay def mais ab jaamu yàlla laa koy jàppe Moussa di nga gis yowmal qiyaam ku dekki di laaj yàlla xar yim doon rey yàlla ne ko yan xar nga reyal pour kan <laughs> fekk rey na sept dix-sept xar tabaski na fi dix-sept tabaski yu mu calculé dix-sept yëpp rey na xar waaye yàlla ne ko xar yi reyoo ko woon pour man fekk ci intention bi la ko ñàkkee mooy Moussa am na koom bi muy jëndi xar la ñàkk tabaski <laughs> waaw dafa jar bàyyi xel de am na koom ba muy am intention jëndi xar ca la ñàkk tabaski am na koom ba muy dem marché ji xotti ji boobu la ñàkk tabaski parce que xam ci ñëw ñëw ci jaayukaay tisi naan ko jaay ma damaa fas defante waaw ah, yow xam nga ñàkk nga tabaski bu yàgg nag waxante dëgg yow ba nga ñàkkee tabaski day mbaa nga ñëw ci téer naan ko ah seetal li nga may ñawal nag damay defante de ah kër ga dañuy defante mo yow xam nga ni amoo tabaski moo tax bëggoon sunu jaamu yàlla ñu bañ ko foyee Moussa ñu xool la ca jaadu ñu def ko ca la ca jaaduwul ñu génne ko ca maanaam du bisu defante de bisu jaamu yàlla la lu ci nit di def na ko tuddee ab jaamu yàlla man daal jàpp naa ni faaw ñu yegg ci nit xotti woon yéreem Moussa dem bañ na tabaski des na ñaari fan mu yëg ni wujju peccor goom amul yére Moussa mu yëkkati yéreem boobu jox ko fekk jigéen tollagul foofu na yëg ni tabaski defagul effet ci man fekk góor tollagul ci war a jënd xar xalaat ni man am naa deux cent mille bu ma jëndee xar mais jàpp naa ni diw tem am xaaral ma jënd bu cent jëndal ko moom bu saa mbokk yi fekk julli gi àggagul foofu ci ñun defaragul dara ci ñun waaye daal bu fekkee ñu ngi fi ñu nekk ba léegi rek mbokk yi te mooy defante a <laughs> ah, man moom suñu réew man looloo ma jaaxal man lépp ñun dañ koy defante ah gàmmu dañuy defante màggal Tuubaa dañuy defante eh, korite ñu defante Tabaski ñu defante ñun kañ la ñuy def te yàlla tax ñun defante rek defaguñ dara te yàlla tax mbokk yi sunu jaamu yàlla yi nañ ko delloowaat takk ko fi mu war a takk mooy tax buñu dekkee yow man xiyam laaj ko sunu boroom suñu borom nañu li liggéey liggéeyoo ngi nii ma jox leen mbokk yi naxuñu kenn nag dañu yëg ne suñu bopp la nax mooy ku ubbi ab compte defoo fa dara ba at ma jeex nga dem ca compte ba dafa laaj dara xam nga ne da ngaa bëgg a foyee sa bopp sa xel rek ngay foye mbokk yi nag compte yi ñu ubbi kër yàlla nañ leen fa def te kuy def na kër yàlla da ngay def te yàlla tax moo tax mbooleem lu ñuy am intention ci biir sunu feet gii di julli gi nañ am loolu ci intention jaamu yàlla lañ koy amee moo tax kon bis la boo xam ni fa xasana hadi al kalimat fa awjaba alayna fi ayaami nahri iqtidaan bis la boo xam ni eh, li ci gën a màgg mooy baat yooyu allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila wa raayna min alfuqahaa المسلمين يوم العيد وأيام التشريق يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد loola waral ñu seen nitu yàlla yi heure bu bisu feet gi ñëwee nga dégg leen ñuy faral di andi kàddu googu ko xool xutbakat yëpp da ngay gis ñu koy addi ci seen i biir xutba faaw ñu wax allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila parce que ay bis la yoo xam ni dañ ko rafetlu ci bëccëg yooyu ñu ko cee def mbokk yi nag képp ku rafetal sa bëccëgu tabaski yégal ni texe nga sunu borom moo ne xadd aflaha man tadakka wa dakkara sma rabbihi fasalla yàlla nee na ca dëgg-dëgg texe na kan mu ne mooy ki nga xam ni bi mu rendee xarum tëbaskéem sellal na ko bàyyil ko borom bi def ko ngir borom bi waaye ba pare nag mu julli tabaski te yàlla rek tax mbokk yi kon ñun ñëpp kon ku ci ne jàppal ni bis la yoo xam ni bis bu màgg la moom sunu feet googu ñu jub qad ixtaara min ayaami arbaa wa min anisaai arbaa wa min ashuhuri arbaa wa arbaatun yasbaquuna ila aljanna ñu yëg ni sunu borom dafa tànn ci bis yi ñeenti bis yi gën a tedd ci bis yi yàlla cité na ko yàlla tànn na ci jigéen ñi ñeenti jigéen ñu tedd yàlla cité na ko yàlla tànn na ci weer yi ñeenti yi gën a tedd yàlla cité na ko waaye tànn na ñeent ñoo xam ñooy njëkk a dem aljana tànn na ko mbokk yooyu yëpp daf ca bokk nag bis bii ñu jub incha allahu rabbi daañu ko waxtaane maag yéen ndax waxtu wee may dab waaye ñeent ñeent yooyu sunu borom tànn na leen mbokk yu guddi yi daal sunu waxtaan day gën a jubu rek ci waxtaan sunu feet gi di yowmul iid di bëccëg gi nga xam ni moom la ñu tuddee bëccëgu feet gi muy bëccëgu tabax ki nga xam ne iidul adha lañ koy wax muy bisu rendi gi muy feetu rendi gi feetu rendi gi nag suñ ko déggee day wane ni am na ku ñu bëggoon a rendi te mujj ñu ko rendi kooku mooy Ismaila Moussa bu ko Ibrahima reyoon nañu jàpp ne kon sunna lay doon a ah, ku amati doom a ah, bu tabaski jotee <laughs> da nga rendi nee nag bu loolu ñëwoon xam ngeen ni mbokk yi kon mën naa am nii ñu koy waajee di jënd sëba <laughs> kon doom danaa tal leneen lu dul jënd sëba <laughs> da gis ñoo xam bu tabaski jub see kon Moussa ñu wut paas daal di wut fu ñu dem balaa ñu leen di taamu ci xar yi kon nag mbokk yi bu nu yàlla defalee tawféex ba remplacer ñu ko aw xar ñu cay sante yàlla waaye waaye nañu bàyyi xel sunu borom te delloowaat ko njukkal te def mbir mi jaamu yàlla yal na yàlla delloo sunuy xel teg ñu ci yoonu njub bi jaayi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yi waxtu na ma waaye maag yéen incha allahu rabbi suba lay doonaat ci seen Label TV ci seen jilsatu nabi di jataayu sayyiduna Muhammad li sallallahu alayhi wa sallam delluwaat gërëm ñëpp delluwaat sant ñëpp ñaanal sunu mbokk yi nekk fële ca màkkatal mukaram yal na yàlla teg leen ci yoonu jàmm ñu dellusiwaat àndandoog mboolem ku ñu fa fekk delsiwaat kenn ku ne ñibbiwaat fa mu jóge woon ci jàmm waaye ñu ñëw ci réew mi fekk fi jàmm yàlla defal ñu tawfiix bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa mbokk yi ma yemale foofu kàddu gi ma ak yéen joxaat leen bu vous suba izaratum salaamatal ardi fattabi'u muhammadan wa arihu hayatal umum mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh